alhamdu wa shukru maan lillahi ala nabiyi waladi abdillahi yaa xayra dayfin ataa bilbishri walmadadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi soppee xaadimu rasul pour bañ a wax ay mbokkam ndax moo wax ne qulubu man lam yuhibbuni fu ñuy nekk mu ne ala wajali wala yulaaquuna ma raamu wala albaaba mu ne xol yi ma soppul foo leen fekk dañuy nekk ci wajal wajal mooy un problème permanent saa yoo ko gisee mu wax la problème bi muy dund tey boo xam ne bokkut ak bu daaw ba bokkut bu démb ba nga ne ma waaw xol yi soppul yàlla nag ñu leen di tuddee athéisme te dara jotu leen ma ne du benn sang yii day man nga leen a tooñ ñu muñal la ko jéggal la waaye boo tooñee kenn ci ñañuy liggéeyal ñu wan la ko dëgg dëgg la wala déet loolu moo am moo tax maa ngi nuyu bu baax Euh, ci turu ñi ma jox seen kàddu toujours damay fàttaliku bàyyi Niass nekk nañ Maroc Serigne Saliou Mbacké ambassadeur duñ añ mukk te bàyyi Niass ne arab yi mën ne Niass na demal waxal ma Saare Mbacké du ñëw parce que mooy chargé d'affaires ba te moom du añ añam bi te ñëwut étudiants yi di contester ku wax étudiant rek bi yëg bële mooy contestateur waaw ñuy contesté nag ah xaw ma dégg na wala déet mu ne xam naa yéenañ ciy wax lu ne waaye man bàyyam Modou Moustapha laa gis teraanga bu ne defal na ma ko allahu akbar mu ne ma bu ñu àndaan ndar ñu convoqué ñu ñun sëriñ si yëpp Modou Moustapha man la daan jox kàddu gi ca maa ci gënoon a nekk xaleel ndaw mu ne ma bu ma waxee ba pare bañ traduire ko euh, dañu naan ak kanet yi mu ne déedéet li nga wax rekk lay wax mu ne loola nag moom laay xool ci Saliou Mbacké ambassadeur moom laay xool ci Serigne Cheikh Mbacké Gaynde Fatma soppoon ma lool bëggoon ma lool ba ànd naag moom ci Maroc mu jënd benn jàllaa ak benn kalo boobu mu fotowu keroog ñoo ànd mu ñëw ne Baye Niass ma ne ko foo demoon Baye Niass ne ko suma doom ji la àndatoon muy jënd lii sëñ Cheikh Mbacke moo ne ma mosumaa jënd yére maa ma ko wax mu ne ñetti walis la indi di di ñëw di ko jox ma ne ko ku duutoon yow dem àllab neen Mbacke wallahi azim ndeysaan mu ne bàyyi Niass Baye Niass ne ko Cheikh Mbacke mu ne ha mu ne ko. dem dem jënd lii ma am tey musuma ko am bàyyi ñës ne ko Senghor nee na maa ngi yow ñoo ko tere nelaw ñoo bokkoon lépp opposition mu mu mu mu xeex ca ñëpp ñu bëree bëri bëri maa ngi documenté tey sëñ Abdoul Ahad Gaynde Fatma li mu wax waaye daal man daal waxoon naa ah Ahmad Iyad Thiam nga xam ne sama bàyyee ko jële woon eh, Fouta 1953 da ngeen ko gis ci tànneef bi ma tànn ma ko cee wax ba ñuy wax ma ne ko bennoo gi daal waa ji laaj na ma ko nooy def ma ne ko dem ca disjoncteur ba boo bësee mu fay boo bësee mu tàkk kenn defu ko yàlla ko defal mooy disjoncteur adduna bi waaw zimaamul wara man man gis nga man tijaan bu doy waar la nag zimaamul wara asri la lillahi bi yadi lu loolu mooy loolu dañoo dem ci sang bii sang bii di Serigne Sidi Maxtaar man kenn dama kenn dama ruus maa ko gën a rafet yére gis ko gisuma ci benn luxe ma gis rek jëmmi Cheikhul Xadim ji ma taxawal baax lool ci teraanga lool lam ma jox nag bu ma may catu moo tax du waaye wa ma aybuhu illa ibadatu rabbihi wa nafrul wara fi subhihi wa mataayi Cheikh Sidi taggee mu ne Cheikhul Xadim dara dara dara du sikkam lu may jaamu yàlla nag bëriwut kon ñii nga xam ne ñoom laa fi teewal démb rek moo xewoon Cheikhul Haaji Malick mu ngi génne àdduna talaata benn deux talaata ba deel si àllarba sun maam alhaaji Abdoulaye Niass fekki ko ñu ne talaata yi Tiwaawoon àllarbay ñaseen bakkan bu doon lam kon borom wekki ko Serigne bu Bousso Cheikhu Ahmad Bamba yónni ko ak fukki nit démb Sid Lamine nee na ma na fexe ba beneen tànneef nga wax fukki yooyu ñana ma ne ko mën naa koo xam waaye xam naa ne Serigne Mbacke Bousso moo jiite woon délégation bi jógee Tivaouane jógee fa dem Kaolack jaaree si Cheikhul Khadim ba mu ñëwee Kaolack nag ba pare nag la bind benn qasida ne shamsun wa shamsun aama shamsin gaabata wa fabaka alwara li takaazufi alazlaami wa malikan li sunnati algarraai wa li duafaai wal aytaami Mbàkke Busa ko wax allahu akbar Mbàkke Busa nag bu taxutoon ak sëñ Tuubaa bu taxutoon ak sëñ Tuubaa muy moom waaye sëñ Tuubaa radar bi dee dag moom lu ko jege mu dagg la sànni waaw boo buggee nekk dara da ngay génn ci rom waaye radar bi ko jege lu ko jege rek mu na la na la fële allahu akbar parce que nag aslamtu nafsi li rabbin la sharika lahu maa lan maa alladi qafuhu lan si maa alladi xafuhu shughli wa xaajaati dama leen leen tos te yéen kat doogu leen murid wallahi alazim góor gii benn waay ne ma ma ne ko dama am lu ma gëm ma ne lan ma ne ko kii ne aslamtu nafsi boo jébbalu ci li rabbin la sharika lahu boo jébbaloo ci kooku jébbalu nga ci yàlla ndax courant bi boo gis ñu branché dafa am source fañ ko branché ku branché ci ku bu branché wu nag boo branché ci moom da nga àgg Sénégal lii xew Mali du fa xew wax naa ko ci tànneef bi lii xew feneen du fa xew def naa dix ans dans le pays arabe li ma gis Sénégal gisuma ko fenn parce que Cheikh Amadou Bamba newu fi nekkul fu muy fii li Sénégal nee naa damay daanu benn waaye dama dangay daanu ma ne ko man professeur laa woon waaw nekk professeur au lycée Faidherbe euh, samay spécialiste ci la rhétorique arabe bu may jàng woyam yi damay complexé min al xaqi jaa al xaqu lil xaqi fi sahbi bi xaqin mubinin laa yuaani sahbi maanaam moment yi gën a jafe moment yi gën a jafe moom Cheikh Ahmadou Bamba bu di ko doon dund moment yooyu nga xam ne boo laajoon Ablaye Mbaye peex ca moment boobu noo tudd mu téen na ma nanu laa tuddati mm. moment yooyu la la gën a rafet loolu laa bëgg moo tax nag kuñ jaarale fi fi ñu jaarale ci moom nga toog di dund ku janoog yow nga waat naa ne du nit ñu war koo gëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu